promogène lépp rek ngir dal euh, mën a am xibaaru biti réew yi daañu dem ba fële ca euh, Côte d'Ivoire euh, fekk ji fa Abdoulaye Cissé tey nag ñu koy xaar ci réewum Côte d'Ivoire gannaaw fukki at yoo xamante ni gëjoon na fa moom Laurent Gbagbo jiite woon réew ma tey jii nag mu war faa delluwaat gannaaw lu ko gàllankooroon ci wàlluk yoon ak nag na xamante ni mooy jafe yi mu amoon ngir dugg ca réew ma foofe nag ca Côte d'Ivoire gis nañ ni yegg seegul naam waaye dafa mel ni coow la judd na xat ndax ñi far ak moom ak ñi fare ak nguur gi daanaka ñi ngi doon doon jéem a laale ba foofu it gis nañu ne takk der yi sax ñoom it mujjoon nañoo dugg ca yëf ya dinañ fa fekk ji Abdoulaye Cissé bu yëf yi noppee daan ci toftal xët yu njëkk yi yéen i mbokk yi taaxul li leen tuuti ñu faram fàccee xibaar yi dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dañu koy dooree rek ci tënk ak la xew ca sali ñax-ñaxal mu soxal nag benn doomi Irlande euh, bu ñu faat waajooju nag euh, mi ngi toll woon ci juróom benn fukki at ci néegam daal lañu ko fekk euh, ñu yeew ko ba mu ne nemm nag rey ko ci anam yu ñaaw moo war a sax fofee ca Saly nag police ba ubbi na ci ab enquete waaye jamono ji ñuy wax ak yéen nag ci enquête boobu it jot nañoo teg loxo rek vigile kër ga ndax moom moom moom moo doon garder yëf ya moo waral euh, kon police teg ko loxo ngir rek gën a indi leeral ci enquête boobee ñu ne sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy defkatu ñaawteef ya euh, la ñu yóbbu taxu ko am solo lool lu may téléphone portable am bi nga xamante ni moom la euh, yoroon na ni ma ko waxee woon ci ndoxteel yi kon atte bi daanu na ci ma Madiambal Diagne ñetti weeru kaso nag la ñu koy tëj muy ñetti weeru ràpp yu mu fas yéene rek tëdd ak alamaan boo xamante ne nii nag kon toll na ci Euh, teg euh, gannaaw jafe-jafe bi nga xamante ne nii moom moo ko moo doxoon ci diggam ak juge bi di euh, Souleymane Teliko tey nag yoon daf caa rek taxaw ndax boobu nag ne gis na ñu ne yëf yaa ngoon ca loxoy yoon moom moomu nag di ma jamal jaañ ñu ne du yem rek ci alamaan googu ndax dana am juróomi million yoo xamante ne tamit dana ko jox rek kii di juge ba avocat yi koy layal nag moom nañu jàpp rek mooy yi daal tëddeewul njaaxanaay ba tax na ñoom daañu def appel ñu teewlu kenn ca ñoom maître Baboucar contre Alassane Ba. sentiment bu ñu am mooy am mooy mooy sentiment de frustration parce que simplement décision bi amul diffamation lu ñu mën a wax wax wax ci Madiambal dossier bii diffamation amuloon parce que simplement balaa ngay wax sax diffamation dafa fekk nga respecter sax la forme forme la form comme ñun ni ñu koy waxee la forme c'est la mère du droit or fii dans dans ce cas précis la forme n'a pas été observée peut-être que le tribunal euh, trop loin en retenant la la diffamation et en écartant les exceptions qui, à notre avis, étaient pertinentes. Donc, nous allons relever appel de cette décision-là parce que Madjamal a été condamné à trois mois d'emprisonnement ferme, ce qui est quand même inédit parce que jurisprudence chambre, diffamation, c'est trois mois avec sursis. Mais curieusement, dans cette affaire-là, trois mois ferme l'incontexte. Donc, c'est la première fois que nous avons une diffamation dans ces, dans ces conditions-là. ñun dinañ def appel contre la décision la te dinañ def tout pour que au moins coup d' ñu xoolaat mbir bi ne xam na ne diffamation amul parce que rapport la Madiambal sukkandiku rapport bi déposé nañ ko communiqué nañ ko mu ngi ci biir dossier bi ni ñu ko waxee woon tamit ci ponk yi muy euh, professeur yi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci njàngaleem euh, philosophie ñi ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi di naqarul nag kenn ca ñoom di benn soxna soo xamante ni euh, dañu ko dóoroon dóor yu metti ci Kébémer te kenn defu ko lu dul nag ndonga ba mu doon jàngal loolu nag tax na ba professeur yi nag defub say ne loolee dafay dakk ndax mi ngi bëgg a jéggi dayoo ci réewum Sénégal te yëf nag gis nañu ne ba mu amee ba tey nguur Sénégal daanaka dafa mel ni ku leen mayul nopp yëf yi tànkam lu googu nag la ñu ne day dakk ndax yëf yi mënatuñu koo dékk dàkkuñu sax nee nañ ba banque seen yoxoo ci liggéey bi lu toll ci euh, ñetti euh, fan Abdoul Fati moom it mi jiite CELS authentique moom it bokk na ci ñi ko ñaawlu Fatou Bintou Konté lañ ci àndal Pape Sangone mbay ak Faly liggéey ñu ngi seetlu fan yi yëpp ay enseignants yoo xam ni dañ leen di faxal di bunduxataal ci li nga xam ne moom moo di l'école bi léegi te ña koy def moom moo di ñi xam ne ñoom la ñuy jàngal professeur de philosophie nga xam ne moom moo nekk ci li lycée de Kébémer moom jot naa jël wàllam ndax benn élève moo ko agressé ba bëgg koo rey ñi nga xam ne ñoo di ay naataangoom professeur de philosophie nag ña ngay ñaawlu acte bi nga xam ne moom moo xew fee ci lycée bu Kébémer. am ndongo bu góor fekk ko ca tableau ba mais dóor ko boo koy waaja a faagagal ñu jàpp ne loolu ñaaw na ñaaw woo xam ne wax dëgg yàlla war nañ nañ ko ŋàññi war nañ cee wax fu nekk ndax nguur yi mu jël ay matuwaayam. am na lu am Caaroy euh, euh, ak Kébémer ak Gànjaay waaw muy lu metti nag jàngalekat yi dox nañ si liñ si war a dox wante nag mënatul continuer na ñëpp xam ni loolu mënatul continuer na parent d'élève bi xam ne mënatul ko mënuñu tuuti payoor. ñu ñuy ñàkkal fayda si réew mi. école nag ñu xamee woon ko bërëb boo xam ne ab jàng rek lañ fa war a def wante jamono ji ñu ngay nemmeeku ay agression ci l'école yi le enseignants yi nag ña ngay artu ki nga xam ne moom moo di nguur gi te it di ko xamal ni fi mu toll nii seen sécurité ci loxoom la nekk. yaakaar na yooyu comportement amuñu seen place ci biir l'école parce que école foofu la ñuy defaree école fa la ñuy tàggatee nee naa suñu école dañ ko war a ñàkk dañ ko war a aar ndaxte boo ko seetloo yeneen wàllu pàcc pencu mépp dafa sooxe maanaam eh, li ñuy wax yar ñuy wax teggin teraanga ay eh, baax baax feeñatul suñu jëflante kon nag ñu jàpp ne wax dëgg yàlla lii dañ cee war a taxaw nguur gi saafara ko. ba ñu jàpp sax ñoom professeur philosophie yooyu nii bu fekkee ne dara defuñu ko ci mbir moomee danañu fas yéene nag génn ci salle de classe yi ñetti fan banque seen loxo. nañ la ginnaaw lii bu weesoo dinañ jël ñetti fan yoo xam ne ñun jàngalekat yi ci wàllu philosophie daañu banque suñu yoxo ñu dem ci classe jàngale waaye nag bu amul saafara daa ñu dajawaat def lël suñu biir xool ah, yan jéego la ñuy defaat ndaxte lii mënuñ koo bàyyi mu seen professeur de philosophie Sénégal yëpp nag jamono ji ñoom li leen gën a métti sax bokk na ci pacteral gi nga xam ne état bi def na ko ci situation bi lee boobu ba tey waxu ci wante ñoom nee nañu ak nu nu mënti def rek danañu défendre ñi nga xam ne ñoo di seeni collègue bii lee te nag ak fu ko mën a jaari Fatou Bintou Konté ñu lay euh, jaajëfal ca diwaanu Fatick moom lu soxal njàngum digg euh, doom yi euh, gis nañu nag ne ak jéego am na ci ni xale yi daan teel a kon bàyyee jàng loole nag dafa mel ni lu wàññeeku bu baax a baax ca diwaanu Fatick li ko waral nag bokk na ci li ñu ne kàllaama yi ñuy nàmp ci biir réew mi dañu ko defeñ léegi ci biir njàngaleem tout tànk yi lu ci mel ni séeréer bi wolof beek pulaar bi ñoom jàngalekat yi sax nangu nañ loolu bu baax a baax xam ne tëggu jaabi école élémentaire bu ngulul pël bokkee ci commune bu Mbélacadiao pël la jàngalekat yi jël dugal ko ci njàngale mi ci élèves yi nekkee ci CI CP ak itam C1 askan wi yeewoo ci ngulul pël nag ñu ci ëpp pël la làkk moo tax na système boobu ñu jël daf leen a yombalal bu baax baax liggéey bi. bu njëkk dañ doon am problème en lecture. bu njëkk ba xale yi mën nañ lire moo te duñ ko comprendre. mais ñoom li ñuy lire dañ ko comprendre. donc loolu ne di xam. pulaar wolof séeréer ñooy làkk yi nga xam ni ñu ngi leen di jëfandikoo ci njàngale mi ci fukki école ak juróom-ñett yu nekkee ci inspection de l'éducation et de la formation bu Fatick. ñi ciy gunge waa IEF bi di benn projet bu ñuy woowee USAID nos enfants lisent projet bi Sokone la nekkee Malal Sané ñu fekk ko ci bureau moom mooy inspecteur de l'éducation de la formation bu Fatick mu ñuy wax ne modèle boobu dafa tax ba fi mu ne teel a bàyyi école bi ci xale yi wàññeeku na bu baax a baax si biir gox bi. bu ñuy demee ci classe yi lu ñu fay gis mooy classes yi yëpp yuy liggéey ci langue yooyu muy wolof muy séeréer muy pulaar xale yi am nañu niveau en lecture et deuxième chose buñ ci constaté mooy xale yooyu dañuy des ci école yi ba CM2 concours lecture nag la ñu organisé woon ci CRFPE bu Fatick ci ñetti làkk yi nga xam ne moom la ñu tudd tax na nag ñu natt niveau bi nga xam ni moom la élèves yi am ci wàllu lecture ci fukki école ak juróom-ñeent yu nekkee ci IEF bu Fatick. dañoo bëgg fexe ba xale bi bëgg lecture def de telle sorte que xale bi dafay jegeñaantoo ak livre am ba bu gisut livre bi da koy manqué xam ne lecture mooy base njàng. projet bi nag nee ñu mu ngi intervenir ci lu tolloog 63 écoles élémentaires yu nekkee ci biir académie bu Fatick. Aminata Goudia bi ñu yegg ba diwaanuk uh, Ziguinchor uh, route nationale numéro 6 bi lëkkale nag uh, diwaan yu Ziguinchor ak Kolda askanuk Añak nag dana ko daal di kon baare ne dara du jàll ñoom askan woowu nag li leen metti bokk na ci soldat di militaire yooyu ñu ne dañu leen di jëlee nag ca boor yooyu te gis nañu ne militaires yi wax dëgg neex yàlla ñooy ñooy ottu seen kaaraange ñu ne nag nguurug Sénégal bu mu bàyyi loolu benn yoon duñu ko seetaan ndax tey ñooñee bu ñu demee tey ana mooy ottooti seen kaaraange naataange ñu teewlu Mactar Gomis moom moo wax ci turu askan wa ci micro Boubacar Diassi. me mbetteel bu ànd ak naqar moo waral sunu daje bi tey ndax danoo xëy bés ni ko tey rek gis camp bi nga xamante ne moo fi nekkoon suñu yaakaar ah si ñetti camp yi fi nekkoon ñu bàyyi woon fi benn boobu ñu xëy tey gis ñu bëgg a dindi camp boobu gis militaires yi daj seen i zeng ba dindi seen i pour war a jóge fii te ñun loolu dalul suñu xel loolu moo waral tey ñun ñu ñëw bi parce que camp bi mënuñu d' accord camp bi jóge fi te lu ngeen ci xamul mooy fi Carrefour la non seulement Carrefour la mais dafa frontière ak Guinée Bissau boo dépassé Camaracounda àll bi dafa yaatu nit mun na jaar fu nekk bu wëree Camaracounda dugg biir Añaak def li muy def duggaat ci àll bi génn dem yoonam nu mu ko neexee loolu nag loolu moo dalul suñu xel ndax kaami nekk gi fi nekk waral na sàcc gi sàcc xar yi sàccum dugg ci biir kër yi bu ci këyeeg leneen di si des camp bi moo fi nekk suñu assurance am na lu fi téye lu fi nit mën a ragalee ba tax du fi def benn jëfin bu ñaaw militaires yi ñoo fi suñu assurance si ñun non seulement dara mais ñun population bi entre ñun suñu biir problème militaires yi ñoo ko fiy lijjanti. léegi nag bu mu toogee ni nga xam te mooy suñu yaakaar si suñu sécurité ñu bëgg ko fi jëlee ah li nga dañuy lancé euh, appel président de la république Macky Sall surtout ndaw añaak yëpp waxuma añaak kase mais dafa toll si añaak petit añaak grand fanda ba Adéane lap gi ñu euh, seetlu nag euh, ci euh, ndakaaru ak ni mu jéggee dayoo mu bari lool bakkan yi rot ci géej gi gendarmerie nationale nag dafa caa taxaw lëkkaloo ci nag ak agence de sécurité de proximité ñuy xool nag yan yoon daal la ñuy xàll ngir gën a mën a xeex yëf yi ci kaw loolu ñu ne nag seen lëkkaloo faaw ñu xoolaat ko moo waral sax au commandant bu gendarmerie nationale yeggoon rek ba fële ci agence de proximité muy général Jean Baptiste Tine moom it jàppale ni tànk yooyu dëgg moo ko tax a jóg ñu teewlu ko ci micro Maimouna Ndiaye ak Youssou Baro. ko gën a yokk ba pare yéen surtout ngeen di ñaax nit ñi fi nga xam ne dañ koo tere bu fa bu fa nit dem fu fu ñu tere ne bu fi bu kenn sangu waaw jarul nit yore topp sa gannaaw en permanence en tout cas ñun liñ daan def ñu ngi koy def fas yi ñu ngi leen di engagé euh, xaj yi ñu ngi leen di engagé euh, waxtaan nag DG Birame fay sànq nañ xool nu ñuy boole suñu doole ba nga xam ne dinañ gën a présent ci euh, sunu zone de responsabilité pour euh, ndaw yi euh, bañ a bañ a bañ a risquer seen vie ci condition yi voilà gis nañu sax ni euh, démb sax président Macky Sall nag mi ngi ci doon euh, wax mu soxal nag euh, kon lab yooyu doon soññ rek ci jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi ki ñu dénk gox yi ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk forces armées ñu lëkkaloo lali pexe daal ba nag loole ñu mën koo xeex bu baax a baax muy wàllu lab yooyu ñu wax léegi ñu wax ci jàngoro yi mbas mi ak tolluwaay bi tey jile fii nag ci Sénégal ñu bari jàppoon nañ ni xëy na mbas mi jeex na mbaa boog ci yoonu jeex waaye askan wi bu yeboo rek euh, ñu gën a taxawaat te xam ne bas mi ba nëga ni mi ngi fi ndax euh, li mu tey jii sax euh, li ñu xayma daanaka jéggi na dayoo ci test yi ñu def mu toll rek ci junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci test di seetlu loolee nag ba ca noppee juróom-ñett fukk ak juróom ñoo amee jàngoro ji am na ca ñaar ñoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan démb ci àllarba ji ñeent fukk ak juróom ci cas communautaire la ñu am ñeent fukk ak benn di cas contact mooy ñooñee nag laale ak ñi amee mbas mi ñeent fukk fukk nag wér nañu euh, tey jile euh, juróom-benn cas grave la ñu am euh, Sénégal nag ñu jot ñàkku ñu koy wax booba tey lim gi kon taxu ko kon yéeg lool ñu jàpp nag ni askan wi war nañoo gën a ñàkku ndax ñu jot a ñàkku donc fim ne nii toll nañu ci ñeenti téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ak lu topp loolu nag yées na bu ñu ko méngalee ak mbébét bi nga xamante ne Sénégal amoon na ko ci fexe rek ba ñàkk lu toll ci million ak lu topp ci doomi aadama ñu des ci yaram wax rek ci campagne ko chirurgie bi nga xamante ne nag ñu koy amal fële ca euh, tuuba jaarale ko nag ci ab opération jagleel ko ñi nga xamante ni dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu gémmin maanaam ñuy judduwaale ak malformation ñooñu nag dañ leen di rek opérer te duñu ca fay dërëm lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci doomu aadama euh, tàmbali nañu leen rek euh, opérer ca hôpital Matlaboul Fawzayni Marema Diop ca diwaanu Touba. jamono ji ñuy amal fii ci diwaan bu Touba ay opération ñi nga xam ne dañoo am ay mal formation ci seeni kanam olof di ko woowee ñi am gémmañu ñombara juróom benn fukki nit jot nañoo saytu seen yaram waaye fanweer ak ñett rek la ñuy opéré docteur Mame Koumba Sarr di chef service ORL bu hôpital Jannatou Mahwa avant opération dañ commencé par consultation parce que balaa nga opéré il faut nga préparer malade bi nga xool ko def indication bu baax xool na kii mën nañ ko opéré am te balaa loolu itam il faut que docteur bu ko nelaw xool ko ba xam ni yaram attan opération bi dafa koy analyse deret fekkee xale yu ndaw ndaw yi yenn saa sa sax pédiatre di leen di xool pour xool seen yaram juróom benn fukki nit dañu xool mais juróom benn fukki yooyu nag bu leen xoolee am na ñoo xam ne dañ leen di dañ leen écarté xaar yeneen mission parce seen yaram attanu ko yenn xale yi dañoo xiiboon wala ñii dañoo am ay jafe-jafe ci deret bi moo dañ leen dégg. jàngoro ji nga xam ne ñi ko am léeg-léeg dañ leen di daw bu ñu sukkandikoo ci médecin bi dafa cher loolu moo tax am nañ ay malade yu bawoo fu ne ci Sénégal. parce que boo juddoo laago da ngay fone daal kii la ay ngirum reyob seytaane ala ko nekk loolu. ba Ziguinchor bi ñëw Touba. ñi jóge Tamba ñëw Touba ñi jógee euh, Matam donc ça veut ñoom dañu am problème moyen pour ñu mën leen faj. kuréel gi ñu tuddee bonne mase moom moo waral lu ni mel madame Mbaye Mariama muy seen ji. fi andi woon daj nañ ko macha allah mbootaay bi dafa jóg pour toppatoo xale yi di leen jàppale néew di joole yi surtout donc ba nga xamante ne nii ñëpp dinañ am seen ree muy ñaareelu yoon ñuy amal campagne bi ñu tuddee chirurgie fente-labio-palatine di ñi am gémmiñu ñombax fii ci diwaan bu Touba dinañ fi toog ayu bés ngir amal lu ni mel. ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Marema euh, Diop euh, ñu euh, daal di rek wax ci fële daloo bi nga xamante ne nag daloo nañu ko muy aéroport bu Matam ci wër Sogi mu nekk nag ab bànqaas boo xamante ne xam ngeen lu am solo la toll na nag ci fukki milliards ak ñeent yoo xamante ne président Macky Sall moom nag moo ko daal di teewee daloo boobu ca diwaanu Matam ndax bokk na ci nemmeeku bi muy amal ci wàll koom boobu ba nag ni ngeen koy gisee rek euh, ci euh, diwaan yi mu di ko def moom président Macky Sall euh, Dissa Préra nag la ñu ci àndal ma nga ca diwaanu Matam ñu teewlu ko ci micro Dissa Préra. aéroport bi ñu ngi ko xayma si quatorze milliards mooy fukki milliards ak ñeent aéroport bi nag dafa bokk si première phase u bi nga xam ne Saint-Louis la Ziguinchor Tambacounda Kédougou ak Ourossogui Matam lépp suñ ko xaymaa mu ngi toll si cent cinquante millions d'euros ñuy à peu près cent milliards donc euh, loolu la day doon aéroport bu mucc ayib parce que ñëpp xam ne na lu fi nekkoon daanaka ab aérodrome la piste bi latérite kese la woon amul tout le contrôle amul lenn lu nga xam ne day eh, dimbale nit ñi waaye jamono ji dinañ am aéroport bu mucc ayib Euh, mangook rek euh, muy kon liggéey bi nga xamante ni jëm na ci aéroport boobee ñu euh, door rek ca Matam président Macky Sall nag daal di nekk jamono ji ca Matam tey sax ca Kanel la fas yéene rek kon féete moom président Macky Sall daloo ba bokk na ci muy aéroport bi Côte d'Ivoire nag ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li bag Gbagbo ñu ngi koy xaar ca réew ma naam sax yegg siwul foofee ca Côte d'Ivoire mu nekkoon fa njiitum réew waaye fukki at a ngi nii nag xam ngeen ni tegatu fa tànkam gannaaw jafe-jafe yi nga xamante xamante amoon na ko moom moomee di euh, président Gbagbo euh, ci jamono waaye la jàpp nañu foofee ci Côte d'Ivoire nag mbooloo mu takku euh, kon ñoom taxaw rek ngir teextu ko am na sax ak laale goo xamante ne jotoon naa am ci diggante ñi far ak bo ak takk der ya derrière Abdoulaye Cissé du ñàkk nag ñu am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu jàll ci tàggat yaram ak euro 2020 bi tey ji nag ñu nekk rek ci groupe B bi ak groupe C bi ñeel ñaareelu bëccëg bi ñi fas ne nag laale diggante Danemark ak Belgique lay doon eh, Pays-Bas dana rek eh, jongante ak Autriche Ukraine ak Macédoine eh, démb nag gis nañu ni Italie daal dinay duma Suisse duma yu metti ñetti bal ci dara leeral yi dañ ci àndal ak Marcel Maroon stade olympique équipe nationale bu Italie doon na démb dëkk bu njëkk a qualifié ci huitième de finale euro 2020 beneen match bu amoon balaa boobu mu doon boole waa Turquie ak Pays de Galles. day ci alxames ñetti jongante ñoo nar am bu benn waxtu ci ngoon jotee Ukraine ak Macédoine du Nord ñooy tijji bala matchu ñeenti waxtu ci ngoon bi nga xam ni Télé Futurs Médias dina ko wone ci diggante Danemark ak Belgique bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon takkusaan jotee Pays-Bas ak Autriche ñooy tëj bis bi. Marcel Maroun ñu koy jaajëfal bu baax a baax Sergio euh, Ramos nag jóge na ca Real Madrid goog nga xamante ne fa la nekkoon euh, di rek euh, football toll ci fukki at ak juróom-benn sol na ko nag mayo bu Real Madrid waaye tey jii ma ngay wan gannaaw nag équipe boobu nga xamante ne yàgg na fa ni ñu ko waxee kon daal loxo baa noonu ngeen gis ko ci nataal bi ma ngay au revoir waa Real Madrid. yegsi nañu ci xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf étudiants yi réew mi ak bang bang gi ñu nekkee borom réew mi nee na basta le témoigné nañu Macky Sall yaana ci fitna ju ñuy dégg ak di ko gis ci université yi ci réew mi te bu ñu ci wax rek dégg ci loxob étudiant démb bi ñuy amal pose première pierre bu institut supérieur d'enseignement professionnel ba ñuy def ca Matam fa la dànkaa fa yi sàkku ci ñoom ñu bàyyi fitna yàq gi ñu nekkee nee na étudiants yi waru ñoo def ci seenum xel rek ne bu ñu a génn di bëgg seenu nekkin gën a ñoŋ vox populi nañu melokaan ak doxalinu étudiants yi mitti na ko lool moom président Macky Sall ba fa kanamu yàlla nee na leen na université yi jël seeni responsabilité ndax lii bu dakkul ñun danañu ko dakkal président Macky Sall wax fay ne li réewum Sénégal di def ak di ko daj ci élèves am ak étudiants am ngir bëgg seenu njàng gën a gën amul menn réew ci Afrique wërngal këpp wu koy daj source wa nañu ca ndaje moomee mu yëkkate yooyu la kàddu moom président de la république mu di ca ndajem pose première pierre bu institut supérieur enseignement professionnel moom Macky Sall dafa far enseignement supérieur Cheikh Omar Anne waxal na ko fa ay baax aki mbaax-mbaax yoo xam ne journal bi jàpp na ne Doudou Ndiaye Mbengue sax ak Farba Ngom ak beneen géwél bu mu mënoon a doon mënuñoo def lu ko raw ci teewaayu recteur yeeg directeur yu ISEB yeeg directeur yu ENO yi fa la féddale ak cantam moo Macky Sall ci Thierno Boundiom rafetlu li muy daj ci enseignement supérieur wax ña fa teewoon ne ministre enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne mi ngi daj lu nekk ngir ñu yokk allocation yu jagleel njàngale mu kawe mi di enseignement supérieur source waa ndegal nee na ko maa ngi lay félicité maa ngi lay encouragé vox populi nañu xamuñu lan la Cheikh Oumar Anne defal Macky Sall mbaa lu mu ko wan waaye war naa rëy ndax simil na ko sàppo ca njum simil na ko sàppoy démb ca maatam ba ñuy tàmbali liggéey yi jëm ci ICP bu dëkk ba dëkk ci lu la neex mbaa dëkk ay neex-neex mëneesu ko léegi ku nañu moo taxit moom président Macky Sall tournée économique am bi nooyoon nepp ci moom ca diwaanu Fuuta tàmbali naa woo Kong ma nga fay gis ay sagar yu xonq ndax ay ñaxtu kàdduy président de la république Macky ci xët mu njëkk lijjanti ca maatam moom jiitu réew mi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne xëyum ndaw ñi ci la bokk ne waxtaane nañu ko bu baax a baax ca ndajam conseil des ministres délocalisé gañ doon def ca maatam soleil national nañu finalement ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk moom la ñu fas yéene dugal ca maatam ci wàllu programme régional d'investissement public liñ jiitu réew mi wax ci fitna ji ñuy nimmiku ci université yi yéen a kaay bi di soleil national xëy na dañu ko fàttali ci xëtamu njëkk mu di na université yi jël seeni responsabilité te xam ne dafay dakk Moustapha Niass mi jiite AFP alliance des forces de progrès nee na dafay joxe lengey réew mi quotidien nañu d la wax nee na ci la fas yéene wàcc ci bopp parti bi bàyyi keneen mu yéeg La Tribune nañu yeex na koo def ba mu waree dem moom Moustapha dafa yàgg AFP dafa dem ba léegi mel na Moustapha Niasse kott la parti bi di Alliance des forces de progrès amatul benn doole ndax kàngam ya ca bokkoon daan ko may doole ñu bari ci ñoom buub nañu seen i déeba déebaa déeb dajale seen kalmanjangaan dem seen yoon la nañu moom Moustapha Niasse nee na après 2022 ci la fas yéene tekki ay jaajam joxe parti bi laaj bi nag moo di léegi kan moo koy wutu ci bopp AFP journal bi gisee ci ne lu ñuy lijjanti lay doon ci diggante Alioune Sarr docteur Malick Diop ak Mbaye John Cheikh Mbaye di man bi ñu fekkoon ab néewam ci kanaali yi ONAS ya ca Kees Libération nee nañu ab jarbaatam len xam la ci enquête bi jàppagum li ko taqal moom jarbaat bi bokk na ci ay bagages personnels yu Cheikh mbay yu ñu fekk ci moom boole cekkit bi ñu koy enquête waxul benn wax bu taxaw ñu taxawaat ci Les Échos ak jëyee ji mu ñu ne moo am démb ca Kër Massar ubbil siraskat bu am ñaar fukkeet ak juróom-benn moo jam paaka benn cousin bu am 18 ans ba mu faatu journal bi nañu li indi coow li moo di moom booy bi dafa am ku mu sirasal ay dàllam ba noppi ne ko fanweer la waa ji ne ko amuma ko ñu nekk ca di jàppante cousin bi ñëw di arrangé ba ne waa ji jox ko ñaar fukk loolee nag moo indi coow li ba ñoom ñaari cousin yi ñu nekk cee jàppante benn cousin bi génne paaka bojj ko ki ci des yéene kaay bi nañu ñoom ñaar nag di ñu ak ñu moo ko rey ay cousin yi lañu yu jege bañ na ko sax ba ñoo bokkoon benn néeg bu ñu dëkkoon ca Malik ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Mamadou Mohamed Ndiaye beneen Mamadou bi taxaw na Ndiaye. Mm-hmm. ànd ak nag tey ak euh, jigéenam Maymuna maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñoo lay fay soxna Fatou ne dem di bàjjenu gox di nuyu téléspectateurs yi internet yi wax nga ko tey dafa am ku ma àndal luy waxtaanee lu am solo. ah tey daam koo prier. waaw mi ngi noonu <laughs> ñu fas yéene amal waxtaan bu am solo waa Africa Innovation yi préparé benn forum bu am solo. Mhm. boo xamante ni bi moo nekk ñaareelu édition bi ci kanam dinañ ci ñëw am ci pàcc bu wax bu am solo ndaxte mbirum digital bi daf ci am solo lool loolu ci kanam dinañ ci ñëw. ma ngoog ñu lay jaajëfal Mamadou ma bàyyi la rek ci kanam tuuti di nga yaatal ni nga ko waxee ak sab euh, gan mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak ci xibaaru digg bëccëg bi euh, sant nañ leen gërëm leen sant leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn du loog jàmm di ko sàkku ci yéen